c'est bon madame Maymouna ñu ngi lay nuyu naa ngi leen di fay ñu ñëw fekk la fii euh, déjà dañu lay masawu ci lu ñu bokk waa di la ko mastawu yow di ko mastawu askanu senegal yëpp di leen jaale ñoom ñëpp euh, génnub àdduna euh, Jean Jean Jean Jean Paul mm-hmm. ñun Jean Pi JP lañ ko doon woowee Euh, ci milieu bi mu nekk maa ngi koy jaale euh, euh, képp ku nekk milieu cinéma di ko jaale ñu nekk milieu mode di ko jaale milieu art bi yëpp di ko jaale itam njabootam di ko jaale ak sénégalais yi nga xam ne yëpp ci liggéey bi mu doon def mu ngi leen doon bégal doon doon def loo xam ni bokkoon na ci ñoom donc askanu Sénégal yëpp lay jaale Jean Pi parce que tey c'est tout le monde qui a perdu comment t'as suivi formation comme sénégalais yëpp rek avec surprise parce que bisu màggal la ñu nekkoon ci màggal gi ci lañ ko yëg euh, jotuñu woon yëg accident am on était très amer parce que luñ ci jot a dégg yëpp un accident tragique évitable hmm, euh, biir Dakar comme ça on meurt euh, manque de sang lépp loo xam ne aussi daf ñuy interpellé ñun ñi nga xam ni ñooy ay citoyens ñu gën a defaraat suñu taxawaay ci euh, code de conduite yi mais ci aussi don de sang yi parce que Jean Pi daan na ko def mais tey quand on apprend que peut-être euh, ci loolu la jaare ay jullit lañu nag nangu nañu ni yàlla mooy dogal mais quand même am nañ ci ay leçons yuñ ci mën a jàng mooy peut-être à l'avenir képp ku nekk euh, bëgg Jean Pi war nga fexe ba dem maye deret ndax ëllëg mu bañ a dal keneen. moi Jean-Pi c'était comme sama petit frère ah, man peut-être yu bëri xamuñu ni def naa mannequinat parce que xëy na bi ma ciy jaar euh, il y a longtemps ba pare aussi mu nekk euh, profession boo xam ni ñun euh, yàquñu ko parce que amul lenn lu ñu ci nit mën a tegal lu ñaaw wala lu rafetul ma ciy profité di nuyu xale yi ci nekk léegi léegi di leen encourager parce que yombul mais ñu ngi ciy bay seen waar dans toute chose nag am na lu baax am na lu bon mais tey seen solidarité ak seen taxawaay c'est à magnifier euh, donc gens yi ci milieu boobu la ñu xamante dañu am association bu ñu créé ñun mag boole leen ci ñoom xale yi pour di leen encore di leen encadrer di leen yedd pour ñu bañ a dugg ci yenn erreur noonu lañ xamante ak moom mu nekk xale bu baax euh, quelqu'un de très jovial am discipline yaru euh, donc man sa mort vraiment ça lu ma attristé lu bëri la loolu moo tax sama tànk yi tey fii euh, donte du ci milieu bi sax du fii la ñu ko war a waxee mais dañoo gis ne sénégalais actuellement euh, dañuy jaaxle depuis ñu dégg que euh, da ngay jot ay menaces et tout lan wax sénégalais pour dalal seen loolu moom duma si wax tey parce que je crois que li may dund tey moo gën a metti loolu lenn rek laa mën a wax mooy Euh, nañu euh, gën a yaatal suñu ay dënn ñun Sénégal ah parce que fan yi polémique yi bëri na wax yi bëri na euh, ñun dañu ñëw jaale champi ñun dañu bokk Sénégal avant ñuy bokk diine boolewuñu islam boolewuñu catholique boolewuñu Sénégal moo ñu boole yàlla moo ñu boole ñu nekk ay sénégalais donc loolu ci lañu ñu bokk ci benn kër dangay gis sénégalais bu am. bu nekk jullit nga gis sénégalais bu nekk chrétien ñu bokk ndey ak baay nit day jur doom sax du bokk ak moom diine loolu c'est une particularité sénégalaise qu'il faut magnifier bu ñu ko bu ñu ko détruire euh, ñiy wax euh, am wax nañu dëgg ci diine lañ ko waxee mais niñ koy waxee nañ ci sóoraale penc mi nañ ci sóoraale dëkkandoo bi parce que dafa am lu ñu boolee loo xam ne moo sacré loolu ñun ñëpp dañuy dem bàyyi ko fii mooy Sénégal donc euh, suñu taxawaay c'est surtout aussi pour ça pour montrer que euh, on n'a pas peur de dire qui est notre ami on n'a pas peur de dire euh, kan mooy suñu rakk kan mooy suñu suñu xarit kan la ñu perdre tey di ko ñaanal ah ci ci li mu gëmoon ndax xam nañu nit ku baax la euh, yàlla nag moom moo xam kan moo baax kan mooy dem àjjana ak kan moo du dem mais ñun xam nañ ni Jean Pi nit ku baax la ku doon def social ku yaru ku yaatu ku amay xaritam euh, kon nañu ko bàyyi ak yàlla ndax yàlla moom benn buur kese la euh, euh, religion boo munti nekk yàlla dinañ ñoo ko bokk kon ñun dañ koy bàyyi ak yàlla jooju ñu bokk di ko ñaanal yàlla suñu borom xare ko ci yërmandeem te yërmande jooju mu boole ñu ci ñun ñi itam ndax képp ku nekk doomu aadama da ngay bàkkaar mais yàlla teg na fi itam astafurlaa ngay baalu voilà son sourire sa gentillesse ak politesse am parce que c'est toujours loolu la ñu woon gis nga man yi fi ñëw tey yëpp les acteurs de la mode euh, euh, ak bi ñu demee lever du corps bi sa paroisse tout le monde a fait le même truc man loolu moom moo marqué ci moom voilà il était depuis comment annoncer son décès je ne fais que de réécouter les message yu ma doon envoyé par WhatsApp moom lay déglu tout le temps euh, euh, dama leen di wax anecdote bu Jean Pi doon wax tout le temps te mannequin yëpp ak ak ak ñi di nekk ci milieu cinéma ñëpp xamal ko ko mooy gërëm yàlla foo ko fekk danaan gërëm yàlla bu waxee ak yow ba pare danaan la waaye mais gërëm yàlla rek gërëm yàlla rek loolu kese la doon wax kon ñu ngi ñu ngi ñu koy gërëmal yàlla ñun ci suñu làmmiñ ñi fi des. waaw comme man rek nekk suma suñu xarit di ñëw suñuy kër buñ ko invité lekk mu ñëw lekk euh, ay xaritam yëpp ay jullit lañu euh, euh, ñun itam comme li ma la wax ñun dañ bokk Sénégal au de bokk xaritoo joxuma kenn leçon de morale ku nekk mun nga wax ci li nga gëm mais kuy wax ci diine am na droit wax ko ci diine la wax mais nañ ciy sóoraale sunu sunu dëkkandoo bi parce que lii mënul yàqu parce que lii moo ñu mag ah moo ñu mag yàlla bu ko neexoon ñu judd ñun ñëpp Arabie Saoudite du diine boole ñu mais yàlla Sénégal lañu la ñu boole Sénégal boole ñu ak suñu ay aada ak suñu ay cosaan ak suñu ay particularité te loolu man man je tiens à ça je tiens beaucoup à ça à cette laïcité à ce Sénégal meilleur là et ce Sénégal c'est avec tous les Sénégalais hein, les acteurs de la mode les acteurs de tous bords il faut Sénégal unifié pour nit ñu yaatal dënn yi euh, yaatal dënn yi du du internet bi nag yéeg ak seen yii nii moom moo ko xaw a yàq ku jóg rek wax lu ko neex du sóor kii déglu naka la koy jëlee mais l'essentiel mooy maa ngi saluer maturité peuple sénégali parce que tey nit ñi wane nañu ci taxawaay bi ñu ñëwee ci bisu Jean-Pierre bi wane nañu ni euh, on est un peuple quand même béni voilà béni te bu subaa dañuy jàll ci leneen Ah, kon nañ na nettali bi rafet daal merci beaucoup